dëgmal waaye xañ na li tiitaange wala sax li xalaat mooy euh, situation politique bi lu ci mel ni ci biir opposition bi yeewi askan wi mu ñemee ba assemblée national ak jamono ji nga xam ne itamit coalition bi jiite réew mi benn Bokk Yaakaar ci mbirum candidature bi ak jafe-jafe yi mu indi ci seen biir ndax yëf yi du gën a tar bu ñu ubbee waaw bien sûr parce que boo commencé ci coalition Benno Bokk Yaakaar mën nga tàmbale ci ñoom parce que ñoom it euh, xëy na yëngu-yëngu yi mënuñ cee mucc parce que contexte électoral bi moom moo ko waral bu leen fàttali ni député yi mën nañoo parrainer candidat te boo xoolee sax pour sécuriser loolu gisoon nga fi ku mel ni Oumar Youm nga xamante moom mooy président euh, bu groupe parlementaire bu Benno qui est même annoncé am na information yu koy annoncé xëy na mu quitté assemblée pour rejoindre le gouvernement euh, pour sécuriser mobiliser ñoom lan am ci ay député ñu woowoon leen ci ndaje moo xamante ne xëy na ñoom ñu gaaw ñoom ñëpp signé pour bañ a parrainer kenn beneen candidat bu dul yoo xamante ne ay informations yu ñoom bëgguñu woon a jox carte que il pose des conditions wala soit ànduñ ci choix bi ñu choisir kii di Amadou Ba te kon xam ne fukki député ak ñett mën nañoo tànn keneen xam naa dem ci ñeneen yi nga xamante c'est des dissidents yu nekkoon ci biir bi et boo bureau bi am na nu muy demee. ñenn ñi buñ frustré gisoon ci seen bopp mën nañoo dem ñoom it fippu soit ñu dem parrainer ku leen neex te loolu je pense que c'est un danger même pour benn bokk yaakaar te buñ fàttali ko c'est coalition bu amoon jafe-jafe pour sax am majorité il a fallu que Pape Diop ñëw bokk ci ñoom ngir ñoo ñu mën a jiitu yeneen coalition yi beneen bi moom mooy Yewwi Askan Wi kooku moom c'est clair que configuration politique ak assemblée nam demee woon daaw ba ñuy ubbi doog a tàmbali wuute na parce que boobu ñoom ñoo àndoon dem wuti ñoom ak waa parti démocratique sénégalais ban boole lu am ñoom ñëpp daanaka seen duñ tuddee woon seen intercoalition bi ñu am 80 députés même si boo xoolee PDS moo ci ëppale ndax PDS am na minimum 26 députés boo doon xool fi mu toll l'opposition parlementaire c'est le parti démocratique sénégalais donc Yewwi Askan woowu nag diggante bi gis nañ waa taxawu ñi ànd ak Khalifa Sall daal di beddeeku parce que ci mbiram candidature justement Khalifa Sall moom moo indi woon divorce bi ak participation Khalifa ak ñi àndal ci dialogue politique bi looloo taxoon waa Yewwi daal leen di exclure sax ci seen en tout cas ci conférence des leaders mm-hmm. mais ci groupe parlementaire boobu léegi waxoon ko woon mm-hmm. mais gis nañ quand li nga xamante ni moom mooy xeeñ ci seen biir euh, le départ de Taxawu de Yewwi Askan Wi te loolu mën naa fragiliser seen coalition diggante bi gis nañ ki nga xamante ne en tout cas même si bokkul ci assemblée nationale mais moo doon jiite campagne di Ousmane Sonko jafe-jafe yi mu am ci wàllu yoon et Pastef aussi am nañ ay député fële ci assemblée nationale muy beneen donc ce que veut xëy na ñu fi nekk nii ba léegi. tëjee intact seen seen euh, groupe parlementaire mooy waa wàllu waa PDS moom déggoo fa am mooy ci base bi parce que dégg nga ñoom wàllu renouvellement yi ngeen fi déggoon ñu ko doon wax yu ci bëri en tout cas dégg nañ ay jafe-jafe yoo xamante am nañ ci muy fii ci banlieue bi dégg ko ca Mbacké dégg ko ca dans le nord muy donc parti yëpp am yëngu-yëngu parce que duñu jëm ci ay élection yoo xamante élection yu inédite la comme comme ni naka depuis vendredi ba léegi ñu koy xaar Sénégal hmm. ñeenti fan jàpp juróom a nga nii ba léegi

parce que ñoom ci biir da ngay dégg ay responsable yoo xamante ni buñ xoolee géopolitique bi ak coow li dañ naan la li Macky Sall di wax ak ñi ànd ak Amadou Ba naan mën nañoo gagné élection ci premier tour loolu ñoom jàpp na ni mënut a nekk vu la difficulté yi nga xamante ni moom la déjà coalition bi di jànk jànkonteeg en interne dégg nga coow la déjà ci parrainage bi bal dee nga ne am na benn journal bu koy wax ca Matam tamit euh, ku mel ni Mamadou Tall a du mal même à regrouper la base benn bokk yaakaar di ah. jànkoonte mm, euh, difficulté boobu lu ci mel ni ay euh, Fatick itam yaa ngi wax ci noor bi ñoom tamit gis nañ leen ay maire ak ay ñeneen ak ñeneen ñuy euh, taxawal ay plateforme nee nañu ngir teer xeex yi am ci seen biir ngir mën a mobiliser wu waat ngir li ñu mbëbët ci élection bi ñu am ko ndax dina yomb ci ñu jëm ni que aussi bien du côté de l'opposition Alaaji Malick que ci pouvoir bi mënta yomb parce que euh, contexte bi nga xam ni moom la nekk nii moom moo nekk euh, contexte bu xaw a doy waar enjeu yi. Mm-hmm. dañu de enjeu yi dafa dafa dafa bëri. Mm-hmm. Euh, parce que bu ñuy dëgmalee ay élections présidentielles les appétits sont aiguisés parce que yaa ngi gis de part et d'autre les candidats qui fusent de partout. Mm-hmm. parce que tey yaakaar naa ni ci histoire politique Sénégal li ñu amagum ci ay intention candidats yu bëgg a nekk président kenn xamul nu mu toll. mais li ci li ci doy moo di ni bi ko nar a métti li ko ta nar a loo moo di ni euh, ñaari groupe parlementaire yëpp moo xam euh, bu opposition bi comme bu pouvoir bi ñoom ñëpp dañu nekk ci pratiquement ab mbiicoog mbaaloo xaw a tasaaroo mm. ba tax na unanimité pratiquement amul amul amul ci benn côté ba ñu jëm ci nag euh, lu nga xamante ni enjeu électoraux yi tax na ba fi mu toll nii kenn xamul amul amul assurance mm. ci ni li may mébét mun naa ko am wala li may sàkku ci samay ñooñ mun naa ko am mooy li Chérif doon doon wax léegi rek que tey même même sur le même parrainage bi nga xam ni député yi mën nañ ko pare parrainer tey jii euh, waa Benno Bokk Yaakaar amuñu assurance ni seen député yëpp dinañu aligné wu mm-hmm. donc ça que pëccëxoo bi dafa bëri tasaaroo bi dafa bëri enjeu yi bëri na am na sax ñu nga xam ne il y a des il y hmm. yu nga xam ne ba léegi sax feeñagul donc loolu yëpp dafay indi ay euh, jiixi jaaxa ci session bii ñu jëm mu nar a nekk session bu nga xamante ni euh, il faut surveiller ça de très près parce que ça va être tendu maintenant concernant également euh, le gouvernement euh, wax dëgg yàlla ñetti fan wala plus de 72 heures amuñu amu amuñu gouvernement loolu aussi dafa xaw a doy waar mais li nga xam ni moom moo ko indi moo di ni difficulté bi mooy trouver le juste équilibre fexe ba ñi nga xam ni ñoom nga àndal muy la coalition du ñu am frustration fexe ba li nga xam ni moo di sa parti doo leen léser loolu yëpp nag boo ko naree taxawal dafay indi problème parce que on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œuf et dans ce contexte bu nga xamante ni ñi ngi jëm ci ay élections am na ñu nga xam ne tey jii ñi ngi taxaw jatu comme ay soccet bu fekkee ni tey laal nga leen wala bokk frustré nga leen rek dem nañu ci beneen côté hmm. évident de mettre en place un gouvernement alors que la logique voudrait que naata booy taxawal gouvernement mu nekk gouvernement bu nga xam ne dafay liggéeyal réew mi dafay liggéeyal askan wi parce que les problèmes sont encore là la cherté de la vie la cherté de l'électricité euh, le, le monde agricole l'éducation donc il y a beaucoup de mm. de priorités yu nga xam ne tey jii bu ñu taxawaloon gouvernement ñi ñu fi samp ci loolu la ñu nar a attaqué mais mm-hmm. tey ak li a taxawal dafa nar nekk pratiquement un gouvernement de campagne électorale et ce qui serait dommage pour le pays. serait euh, purement politique Ibou. ñoo ngi ñoo ngi wax euh, session ordinaire unique mais je pense que ça risque d'être euh, une session extraordinaire <laughs> vu le contexte ndax fi mu ne nii lii bu ñu ci jógee samedi incha allah dina bëri. loo xamante ne dina gën a leer ci gëtu askan bi dina am lu bëri li mu soppi tamit. léegi maa ngi koy gis euh, du ñàkk euh, deuxième partie bi ñu dugal élément bi sax euh, waa Louga la région de Louga. je pense que ñoom dafa mel ni ils ont moins de problème parce que Thierno Fall mu ngi naan lu toll ci juróom fukki maire ak. juróom fukki maire ak juróom yoo xamante ne daanaka joxe nañu seen kàddu ngir lépp loo aju ci wàllu parrainage ñu baaxee ko. Euh, parti bi nga xamante ne mooy euh, ànd ak Amadou Ba muy loo xamante ne peut-être dina bokk ci li doon exemple wala li bokk ci li nga xamante ne dina. mais en politique yi bu parfois kàddu yi tamit. du ci dara de <laughs> mën nañoo wax lii ba ci dem ba ci cappaandaw la def leneen. waaw mooy li may wax Chérif rek ñoom différence bi seen biir dafa bëriwul. Hmm. et généralement euh, askan bi ñoo ci perte à chaque fois mais bon en plus mais loolu importance bi mooy naata. Hmm. xam nga. loolu pour nga am ko tey dans une localité yaa ngi wax Nord léegi yaa ngi wax Fatick yaa ngi wax. Hmm. mais ñoom au moins ils ont eu le courage de dire que kii la ñuy jàppale. Hmm. mais loolu pour nga am ko ci yeneen diwaan yi tey peut-être mën doon problème. mais de toute façon euh, ñu ngi xaarandi te ñu gaaw nag ci gouvernement bi parce que bëri na. loo xamante ne askan waa ngi koy xaar ndax euh, réew mi daanaka tout est priorité. Mm, ñeenti weer ci des de Cheikh. <laughs> ñeenti weer moo ci daata euh, euh, ci jamono yoo xamante ni askan wi sonn nañ ci yenn ci ay yoo xamante ni war nañu ko mën a dund fii ak ñu nëgëndiku li nga xam ne moom moo di gouvernement bu yees yi nga xam ne moom la ñuy xaar ñàkkul ne. Mm. bëri na ci loo xamante ni dafa tàggatémbe ci yile jamono ci jamono yoo xamante ni askan wi soxla nañ bu baax a baax ku leen massa wala book jafe-jafe yi ñu mm. nekk nga daal di leen. ci euh, jàppale wàllu gestion bi nag mooy wax ne rek ne euh, ñoom euh, sénégalais lañ teewal ca pencum ndawi réew ma nañu bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne moom moo di suñu ay intérêt. bu baax mm, jërëjëf merci beaucoup Cheikh alors léegi dañuy ñëw jàll ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.